rabitul al Qurani fi Senegal. far bu Touba ñoo amalon ndaje fi ci keur Serigne Touba gi ci teewaayu membre lu bari ci membre yi ak kilifa yi mbolo mi waxtane tollu way yi ñu tollu xam ngeen ne suñu mbokk Serigne Khadim geey ñu diko ñaanal suñu borom gën ko sam gën te musal ko delloo ko ca daaraam mu dellu ci ab liggéeyam te musal mbokki jullit yépp ci xeetu natt yu mel noonu di ci massawu it nag mbokki jullit yépp ci coono yi nga xam ne ñu ngi ko ciy toggoo ba xew-xew ba amee ba léegi bari na ci ñoo xam ne tëddatuñu noppalootuñu waxtu nekk ñu ngi jokkoo ñu ngi dem ak ñëw eh, te loolu it moo war ci diggante mbokki ay jullit eh, kon ñuy ñaan yàlla mu fay leen ci ngën ji yiw waaye di ñaanal saahibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu boroom yokk aw fanam ak wéram gën koo kàttanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom yu bugg fu kawe njort yëpp te na ànd koog moom ci barkeb sëriñ bi eh, di ko ñaanal bu baax ndax xam ngeen ne bii xew-xew bi amee bi daara demee ci moom jàmbat ko ko eh, taxaw na ca taxawaay bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk eh, boo xam ne ku ne xam na ko daf koo def muy mbiram ittewoo ko taxaw ca nam ca war a taxawee eh, dox ca la mu ca war a dox eh, mbokk yépp ànd ca ak moom ca taxawaay booba ba tax eh, keroog àllarba gis ngeen barab ba na mu feese mbooloo mépp fenn fu nekk nit bàyyi koo fa waaye moom ci taxawaayam yu mat mu wax ne lépp lu muy def ci jàmm ci ak dal ci la koy teg ndax loolu lañu ñu xamee ab jullit loolu la xamee ak ak ab taalibe tax mu jox ndigal sëriñ Mamor mu joxeel ko ndigal ci mbooloo mépp nañu maase ci ànd ceekub yar ànd ceekub dal te déglu ko ci te xam ne moom def na ko mbiram ta mi ngi ci taxaw loolu nag moo tax faran bu Touba ci rabita bi euh, def ndaje fii waxtaan euh, ne ndigal loolu yi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe na ci mbokki daara yépp maase mooy suba ku xëy na euh, jublu ci na xëy ca daaraam jàngale te yokk ay ñaanam eh, sëriñ xaadim suñu borom delloo ko ca daara am te sàmm ko aar ko te musal jullit yépp kon loolu mooy eh, xaraar bi nga xam ne moom la faran bu Touba jël di ko sàkku ci sëriñ daara yépp di yaatal càkkutéef gi sax ci furon ay rabita bi ci biir réew mi eh, ñu sàkku ci seeni mbooloo ñu dolli ak dal te xam ne sëriñ bi moom taxawaay mat na sëkk te dara du ca des incha allah li ñëpp bëgg dana am kon loolu mooy ndigal li nga xam ne tey jii ci talaata di ñetti fan ci weeru décembre moom la faran bu Touba jël fii ci Touba ci eh, kër sëñ Touba gi ci jumaa ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.